xam nga dana am gaa ñu bari ñuy wax naan na euh, planning familial boo gisee ñu koy wax jàll nekkul lu mooy ay problème mu koom ak ay problème mu am am ak bëgg bëgg natt njur meeg bëgg naan bu baree ni ñu duñ fi xej ak nangam nangam am na ñoo xam ne noonu lañu koy gisee wante euh, planning euh, bii nga xam ne ñun moom lañu xam te am ci ay ay tekkal yu wér moom nekkul rek natt am njur wante kay li mu doon mooy soreel am njur kon dugul rek problème mu économique koom waaye problème wér-gu-yaram a ngi ci sàmm wér yaram yi ndaw si ëmb sàmmaale wér-gu-yaram yi doom ji ma ngi ci sàmmaale mm, nan lañ kii mën a amee ay eh, ay jumtukaay yuñ ko mën a yare ba jàngal ko itam ma nga ca kon nag nekkul rek eh, eh, mbiram koom-koom daal donte bokk na ca waaye daal du moom daal xam nga tawakkul wakkilu ci yàlla dafa dul dàquwante ak cël euh, say matukaay xam nañ gaa ne yàlla wax na ne wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha amul lenn luy dox ci suuf lu may wërsëgam yàlla nee na moo ko gàddu xam nga loolu am na uh-huh. waaye xam nga ñu xam ne yàlla gàddu wërsëg loola du tax nag ne nit ki ne wakkilu ci yàlla ba toog du jël ay matukaayam du jël ay waajtaayam ndax yàlla wax na feneen ci alquran ne famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi dem leen ci wàllu suuf ngeen liggéey kër-kër yi sonn la ci génn ci wërsëg ngeen lekk ko wax na feneen ne fa isa faraxata sob boo yeggalee ci jaamu yàlla gi demal nga sonni te boobu yàlla mën na wax ne maa gàddu wërsëg kon loolu euh, euh, du ko jar kon nag euh, planifié yu daal mooy xam naa li wolof di wax naan yàlla yàlla bay sa tool loo wakkiilu wakkiilu ci yàlla def dara gis nga Omar ibnul Xattaab mos na wax wax bu solo dafa ne benn waaye daf ne woon nañu wakkilu ci yàlla ndax wërsëg yàllaa ko gàddu Omar ibnul Xattaab mais asamaan si du taw wurus du taw xaalis kon da ngay liggéey ba sottal jël say matukaay door a sukkandiku door a ci yàlla ndax asamaan comme du taw wurus du taw xaalis gis nga yëngatu ak liggéey sonn na jël say matukaay du ne mooy sos wërsëg waaye mën na laa yóbbu bu ci wërsëg wa te mën na ko yombal wërsëg gaa ku ñu xam ne ne yàlla moo ko gàddu waaye dafa sant nit ki itam muy yëngatu di def jël ay précaution tax yàlla yàlla bay sab tool ndaw si li mu wax lislaam euh, xew-xew bu am rek day fekk ne eh, ñun suñ téere waxoon na ci ndax alquran bàyyiwul dara lu tuuti bàyyiwul lu mag lu may wax ci lépp luy jëriñ dem aadama wax na ko lépp lu koy lor wax na nu ñu koy eh, ko eh, ci nu mu wax ne lislaam njëkk naa jël ay garde-fou balaa ñoo baril jabar yi fekk ñu man ko lislaam kay mën ko tàmbalee ci benn jabar bu jëkk bi sax mhm. balaa nga ko jël na fekk nga am kattan gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ne man istataa minkumul baata falyatazawaj ku am baa baa muy lan mooy na nga mën a dëkkal mën a dëkkoo mën a wadd mën a joxe lekk lii bu mënee am mu ne ku mën lii na denc te denc jabar sax xam nga moom du nekk farata lu mooy ci ki nga xam ne dafa am ay ay ay matukaay ay ay ay jumtukaay am na ba pare te wér na te mënta muñ ba du jàdd kooku la nekk ci moom farata waaye bu fekkee loolu mënta am rek nekkatul farata lu ñu soppa lay doon moo tax ba du ci xel ci la bokk taw yi ku ci mënati loolu ku ci amati baa la denc ñu ne ko ku ko amul nag ñu ne mu ñu ku ko amul nag mu ne kooku nu muñ mu ne nu muy mu ñëw ma ngay woor ndax fa innahu lahu wajaa ndax koor mën naa dox diggante moom ak euh, def lu naqari yàlla léegi kon mu ngi mel ni lislaam waxoon na bu yàgg ne laa taqrabu zina bu leen jege njaalo bu leen ko jege mhm. eh, xëy na yàlla rek xam li nekk ci biir mhm. mën naa am ay feebare nekk ci biir ci njaalo mën naa am eh, ba lu bokkul ak bakkaaru alaxira bi am na yeneen yu nekk ci biir waaye yàlla daa waxoon na buñ ko jege mhm. kon buñ ko jegewut amaan na kon yu mel ni yépp duñu dal waxoon na itam ne koo ci xam ne amuloo can amuloo kattan pour takk na nga fegu wala yastaafif ladina laa yajiduuna nikaaxan xata yagnihum allahu min fadli kon loolu mu wax lislaam euh, jëloon na ay matukaayam bu yàgg xëy na ni ñi ñoo ko daw dégg la mu bëgg a wax moo di ne ndax azlu dagan na ndax planning familial bu ñuy wax naan lislaam maye na ko lislaam daf cee joxe ak dagan luy maanaam dagan kum neex def kum neexul mu ñàkk def def loolooy dagan xam nga dafa am terminologie bu am ci bu buñ ne dafa xaraam mooy kon ci yàlla la jógee dañ koy bàyyi lii lu war la ndigal la bu jógee ci yàlla dañ koy topp bu ne lii sunna la ñu xam ne ci nit bi lu jógee dañ ko war a topp bu ne dañ ko sopp itam noonu la bu ne dañ ko sipp mooy loo xam ne daal mooy safaanu euh, lu ñu euh, sunnaal planning familial bu dafa dagan mooy mu ci digg bi ndax bu xaraam ak sipp nekkee ci càmmoñ euh, dagan ak war ak farata nekk fee ci ndeyjoor dagan moo nekk ci digg bi dagan daal mooy loo xam ne permission dañ la ci jox su la neexee nga def ko su la neexee doo ko def masala mii nag ak dagan moo ci nekk te wax ji ma wax ne euh, def planning dagan na fuqaaw yépp ñu ngi ko qiyaas ci aslu ñu ngi ko qiyaas ci aslu lan mooy aslu mooy ku góor daan jote jabaram bu dara desul lu mooy la war a nekk doom mu dindi ko ci bitti la bëgg wax loola nag fuqaaw yi li ci wax moo di ak dagan ak dagan jumhurul fuqaa moom la wax te yi may wax eh, boo ko seetee Buxaari indi na xadis boobu muslim indi na ko masal imaamu ahmad ma ngi ci abu dawud mu ngi ci boo demee ci tafsirul qurtubi ñooñu ay maliki lañ ñu ngi ci ihya ulumuddin bu ghazali shafii nee na dagan na nihayatul muhtaaj kooku shafii la ndi shamsuddin ramli nee na dagan na kitaabul muhni ibnu qudamata kooku ngiram xambali la nee na dagan na xasiyatu fatul qadir Euh, bu Kamal ibnu Hammaam kooku xanafi nee na dagan na Naylul Awtaar bu Shawkaani xadis la nee nañ dagan na kon lislaam li mu wax boo seetee itam euh, euh, borom xam-xam nga xam ne ñoo jamonowante ak ñun wala bu yàggut ku mel ni Cheikh Ibrahima Dusuqi nga xam ne moo doon wakkilu daawa ci Égypte ñu ne dagan na boo gisee fatawaay Cheikh Mahmoud Chaltout nekkoon na recteur université Azhar rahmatullah alayhi moom dafa wax ne bu lislaam waxut ne Eh, planifié wu ndax soril am njur ndax nit wér ndax doom ji wér ndax ndef ñàkk am bu lislaam waxut ne dafa warit dana wax ne kon kay lu dagan la téere boobu demee ci fataw bu chaltut loolu la fay fekk ki nga xam ne moo nekk cheikhul azhar eh, actuellement nekk recteur université azhar bu imaamul akbar bu égypte te ñëwoon fi ren muy cheikh jaadul xaq ali jaadul xaq moom it boo gisee eh, luñ na ba mu jiitee commission ba mu jiitee seen xalaat moo di ne planifier daal bu fekkee ne mooy soril am jur su fekkee ne mooy aar ndaw si su fekkee ne mooy xeex ak nef su fekkee ne loolu la lislaam daganal na ko waaye day digle jëmee ci boo seet itam docteur Abdul Kabir al alawi al madghari mooy ministre de awqaaf bu Maroc conférence bi mu defoon daaw daanaka lool la ca wax te document yaa ngi fi boo gisee itam euh, ki nga xam ne moo di euh, docteur Abdourahman Najjar muy directeur affaire mosquée yi ci euh, Égypte wax na ci kon référence yëpp yëpp yëpp yëpp ci lislaam wax nañ ne euh, planifié wu dagan na ñu ngi ko ci azlu te xam nga ne aadi mhm. euh, lislaam euh, source yi nga xam ne ci la lislaam di jëlee mhm. mooy alquran mhm. ak hadis fépp foo xam ne gisuñ ci alquran ne xaraam na gisuñ ne hadis ne xaraam na luy cosaan ci usul mooy dagan na jërëjëf xaaj Moustapha ñu jël mbokk. faxe naa ko fii wante eh, l'islam ci boppam mhm. moom moo placé loolu ndax bi yonent bi waxee ne wattandiku leen nef ndax nef mooy mbir mu jege nee na dana jot eh, góor ga góor gu ñu nef ba moromam day taj dajeeg ñoom ci xare nërmeel ko léegi nag lislaam ne kon nag jigéen aayee nañ ko mu ëmb ci waxtu wi nga xam ne daf koy nampal te diiram nampal boobu nekk ñaari at yooyu nga wax moo tax itam euh, boo seetloo euh, aaya boobu loolu mu wax ci ñaari at yooyu nàmpal boo boo ko seetloo fukkee euh, juróom-ñeenti weer yi ndaw si ëmb boo ci boolee juróom-ñeenti weer yooyu mu ëmb nga boole ci ñaari at yi nga xam ne moom la nàmpal boo ci tegee ñetti weer ni nga ko ni nga koy teqale loolu mooy fanweer weer yi alquran wax waxam lu wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahran kooku aaya 15 la ci suratul ahqaaf kon loolu mooy tekki ne kooku na planifié wu ba bu mu nef ba bu doom yi tegaloo ndax ne na diggante ëmb bi ak nampal ak jur gi nampal gi ba feral gi fanweeri weer la fanweeri weer soo ci dindee ëmb bi juróom-ñeenti weer nga dindi ci nàmpal gi ñaari at yooyu soo ko bonee ñetti weer nga ci yokk mu daal di nekk fanweeri weer loolu xam nga doom yi suñu magantee ñetti at li mu tekki mooy planifié nga kon bi yàlla di wax na nampal leen ñaari at kon planification alquran wax na ko bu yàgg xëy na nit ñoo dégg wala ñoo déggut loolu rek la kon ni nga ko gisee alquran wax na ko bu yàgg dugul nag sama xalaat wala maa ko fiy dugal waaye alquran moo ko fiy dugaloon ñoo ci door a yegg si rek nga xam ne man de fonds yi duma leen tontul parce que euh, la ñuy def xaw ma ko xam nga man li ma xam mooy ngir posé wu na rek lan moo ci opinion l'islam parce que en tant que ku xam tuuti ci diine war nañu leeral nit ñi problème yi xew ndax ñu xam fa ñuy jaar am naa nag bailleur de fonds yi fii lañ jaar bailleur de fonds yi euh, wala diine fii lañ jaar xam nga euh, problème mu planning ñi nga xam ne ñooy jóg di dal ci kawam yëpp façon yi nit ñi rek la am na kenn koo xam ne da ko yitte doom ñaari doom la am ñetti doom te am na ay moyens kooku xam nga du problème am na euh, itam koo xam ne dafa yaakaar rek ne xalaat daa ngi jógee bitim réew dañ ko war a euh, sànni te du lu jógee bitim réew rek sànni ko am na koo xam ne def naan problème mu état bi la programme la kon man damaa war a contre état bañ ko am na koo xam ne itam li tax mu weddi ko da koo xamut da kaa réere rek lii rek lay doon wa ala kulli xaalin problème boobu ku xam réalité réew mi dëkk nga xam ne posé na pour ñun ndax ay doom a ngi tegaloo am na ñoo xam ne at bu nekk dañuy am doom mhm. espacement de naissance kenn mënu koo génne ci planning ndax ñu kii planifié wu mooy ki nga xam ne fexee na ba am ñuram sore planifié du dara lu mooy prévoir bàyyi xel nangam ak nangam donc mënut a teqali ko loolu amaa bàyyi yéen ni ñu ko gisee loolu ci mën a tontu. loolu ñaari ay alquran la. benn baa ngi nekk ci suratul isra. benn baa ngi nekk ci suratul an'am. laa taqtulu awlaadakum xashyata imlaaqin. isra la. wala laa taqtuloo awlaadakum min imlaaqin kooku am la ñaari aay yooyu yëpp nag dafa duwuloon problème mu planification familiale aay yooyu xam nga lu ko taxoon a jóg jëmb mm. arab dañu amoon aada yi képp koo xam ne dangaa am doom muy doom bu jigéen danga naan xëy na mu indi la gàcce wala ki nangam ki nangam su ko defee ñu di ko rey di ko dal la ba alquran naan wa isal mawuudatu suilat bi ay zambin qutilat kon bu leen rey seen doom ngir ragal ñàkk man yàlla maa leen di wërsëgal ak doom yi wala bu leen rey seen doom ngir ragal ñàkk yàlla man yàlla maay wërsëgal doom yi ak yéen baay yi loola bokkul ak planning ndax boobu bii dafa nekk doom ba sottal te ki planifié foofu doom nekk gu fi fi doom nekkagul foofu lañ planifié foofu nag kenn lenn lu ñuy rey nekku fa kon nag loolu bokkul ak euh, planning jërëjëf et dama tàmbali woon a wax ne euh, planning familial boo gisee fuqaawul islam yi ne dagan na ñu ngi ko qiyaas jumhurul fuqaha ñu jàng xam na ñuy jumhur jumhur mooy majorité borom xam-xam yu toppatoo lislaam ñoom ñëpp dañuy wax ne dagan na am nañ ci ay détails nag yu nekk ci moom waaye nag bu fekkee ne azlu dagan na kon nag jumtuwaay yi ñuy def azlu mooy lan diggalee ndox mi ba du dem palaasam lislaam nee na dagan na ndax daa nañ ko pratiquer di ko jëfandikoo ci jamono yonent bi te aayewu ko Buxaari yoo ngi nii muy téere bi gën a wér gannaaw alquran jaabir ibnu abdullahi di ñu wax naan kunna nazil wal quraanu yanzil daanañ def aslu te booba alquran a ngi wàcc loolu mooy kenn daawuñu ko tere muslim mi ci topp mooy deuxième ouvrage bi gën a wér gannaaw alquran ak Buxaari Buxaari muslim teg ci ne falam yanhaana rasulullah daanañ def aslu te yonent bi daawul ñu ko tere eh, usaamati ibnu zeydin moom it mu ngi wax ba tey ci muslim la ne benn waay jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal inni aazulu an imraati fa qaal lima taazulu anha qaal ashfiqu ala awlaadiha qaal rasul sallallahu alayhi wa sallam law kaana daaran la darra faris wa ruum mu ne man de dama bëgg a asu sama jabar te dama la ci bëgg laaj daal Usaama moo wax ne ma ngi toog waa ji laaj loolu yonent bi ne ko lu tax ngay aslu sa jabar mu ne dama yërëm ay doomam ndax bu ma asluwut mu dal di ëmb doom yi màgguñu dama leen a yërëm yonent bi ne ko loolu dara nekku ci ndax bu fekkoon luy lor la dana lor perse yi ak rome yi ndax daanañu ko def kon nag ci aslu mii ci la fuqaawu yépp qiyaasee ne te aslu mooy diggale ba ndox mi du dem palaasam ndem loolu dagan na ñu pratiquer ko ci kanam yi kon bu ñu amee jumtuwaay boo xam ne dana teq diggale ndox mi ba du dem palaasam ba ëmb du fa am kon kay min baa bi awla kon de ci lii dañ ko amatul xam nga ne suñu maam yi doon nañu takk ay bootaale pour bañ a pour bañ a neef. waaw pour bañ a ëmb. Mm-hmm. Euh, euh, dem ci ñu te leen takk ñu naan bootaale tudd ñu nangam ak ki nangam yu demee ni ki noonu arab yi daanañu am ñax guñ daan naan loolu fekku sunu seen sabiq indi na ko pour bañ a ëmb loolu moo jiitu woon lii. kon nag boobu yëpp dañu amagul jumtuwaay bu jumtuwaay amee daal te jumtuwaay yi ñu topp te wér gu yaram bu ñu seetee ne du lor doomu aadama bi. kon lislaam du def lu may daganal ko kum neex mu jëfandikoo kum neex mu bàyyi. jërëjëf eh, wax na dëgg sax de ndax eh, eh, sëy moom gis nga bi yonent bi waxee sëy dañoo waxut ñépp nañ am jabar yàgg naa di wax ne góor ñu bari góor lañ waaye duñ jëkkër ndax jëkkër day am lu muy man ki nga takk danga koy dundal wadda ko dëkkal ko wante dëkkoo ko soo xamee ne loolu doo ko man danga warul takk ndax boo ko takkee da koy lor te lor jigéen ji daganut sëy bu mel noonu nag yore jabar doo ko jox saabu doo ko jox dara su fekkee da ngaa am te bañ boobu sëy yoon def ko war a tas su fekkee danga amul nag di tout ba xeeti am yi amoo ci dara da ngaa warutoon a jéem a takk di jéem a gàddu keneen ndax da nga koo mënul kon li la wax mooy muñal walla ngay woor waaye waroo takk. fawaaxish mooy jamu faaxisha du yaa ngi dégg bu baax. fawaaxish mooy jamhu fa fawaaxish mooy jamhu faaxisha loola mooy lépp loo xam ne dafa ñaaw lépp lu ñaaw rek loola euh, faaxisha la ñu ngi koy jamoo ci fawaaxish waaye li gën a bari ci ulamaawu tafsir bu ñu ne fawaaxish wala faaxisha rek moom ma ngi jàppe njaalo ñoom ñëpp faaxisha lay ji xeetu njaalo lay doon wala liwaatu gis nga fi mu ko tuddee feneen ba gaa ñu waxee dafa faaxisha daf ne maa sabaqakum biha ahadin min alamin kon faaxisha mooy lépp lu ñaaw waaye lu mu gën a jàpp ci ulamaawu tafsir mooy njaalu waaw euh, xam wakkiilu du tere nit ki sabablu gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wax naan su ngeen wakkiilu woon ci yàlla dëgg dëggi wakkiilu kon wërsëgal leen nii muy wërsëgale picc ndax dafay xëy xëef waaye bu gonte ngoon du ñëw da fekk mu regg loolu boo déglu xadis bu baax tekkiwut wakkiilu toog waaye wakkiilu xëy la ndax dafa ne picc mi day xëy xëef bu ngoonee mu renk kon picc mu noonu wakkilu na ci yàlla waaye dafa xëy kon ku wakkilu ci yàlla fokk nga jël dafa am lu tudd wakki tawakkul ak tawaakul tawakkul mooy def li nga war a def yëpp te xam ne yàllaay maye tawaakul nag mooy ne yàcc ca la yëkkati say loxo nan yàlla mooy joxe loolu boo ko defee doo am dara. li ma la ci bëgg a wax rek moo di ne mag yooyu yëpp. ñoo dëkk ci réew mi xam nañ ni mooy gi amoon na fi balaa loolu ngay wax a am te it loolu bu fekkee ren lañ ko tàmbalee wax daf lay wóor ne bu ñu waxutoon loolu ren it mooy gi day yokk fekk nit ñaa ngi yokk parce que nit ñi la yàlla bindee noonale ragal yàlla moo amut xam nga suñ problème yëpp mooy éducation islamique wala religieuse dañ waroon nañ yar famille yaru diine parce que yaru diine rek mooy tax nit ki du ma yàlla ba nit ki ragal yàlla nit ki bu ragalee yàlla xam ne bu defee lii am na ci ay daan yu ko ciy tegu amaan na du ko def waaye amut lenn loo xam ne mën na koo fanq lu may loolu am naa nag euh, yooyu nga wax ne dañ koy euh, publicité naan ñu def ko nangam def ko nangam ah moom day moom xamal na itam ñaar ñuy sëy mën na leen a dimbale mën na leen a dimbale moo di ne waxtu woo xamee ne feebar am na ci kenn ci ñaari way dencante te feebar ba dafay wallaate kooku pexe mu nit ki mën a def ba du la ki muy sëyal loolu xam nga lu baax la te loolu am na léegi ci àddina tam yàgg naa am itam mais même feebar yi xew léegi ñu naan sida ak nangam am na yu ko fi jiitu woon yu garaaw yu ndoxam siti la yu syphilis la yu nangam yu nangam la loolu fuqaaw yëpp borom xam-xam yi dina yëpp dañ ne bu amee ci kenn ci ñaari way dencante nañu sàkk pexe ci planifié ba doom du am ndax liñ mën a am day walla doom jooju bu ëllëgee eh, ci société bi day nekk koo xam ne ku ñu rejeté la kon nag yaakaaruma ne loolu moo indi mooy yàlla gi ndax fi la fekk moo yàlla gi ànd ak nag nit ki nga xam ne dafay dafay mooy yàlla maag yow yëpp mënuñ ko ko tere ndax boroma ko ko njëkk tere mu bañ kon kooku maag yow yëpp mënuñ ko ko tere waaye da ngay natt da ngay natt ki mooy yàlla bi ëmb ci ëmb boo xam ne jaarul ci yoon xam nga ne am na ñaari bàkkaar am na bàkkaarab euh, doom ji mu fi indi te jaarul ci yoon am na bàkkaarab mooy yàlla ki mooy yàlla nag moom te indi fi indiwu fi doom ji jaarul ci yoon ndax def nay pexe def lay wóor ne kooku bàkkaarab euh, mooy yàlla ga la am waaye indi fi doom jooja loolu moom gàdduwu ko léegi nag ñaari lor bu ñëwee da ngay seet bi ci gën a woyof damaa wax ne eh, borom xam-xamu lislaam yi muy ngéeri ñeen yi ngeer la wala juróom ci ñenn ña ngéer yépp lii lañ ci wax muy aslu fexe rek ba ndox mi dem feneen ba doom ju du am bu fekkee fuqahaawul malikiya la dañ aslu dagan na boo ci dëppoo ak sa soxna ngeen déggoo ci bu dee fekkee ci ngéeram shafii la te ba demee ci waxi limaamu shirazi ak ghazali dana ko wax ñoom ñoo wax ne dagan na bu ci ñaari way dencante ya dëppoo waaye ñoom xanafiyeen dem nañ ba ne même buñ ca dëppoo dagan na kon nag boo seetoon ngir yi benn benn benn bu mu jeex mu ñeenti ngir yëpp daggana nañ jëfandikoo woowale bu fekkee neex na la waaye loolu nag balaa ngay jot ak soxna si eh, loola nga ko yóbbu feneen ak loolu mu mettee te muy xàq ndaw si fuqaaw yëpp dañ ne droit ndaw si la foog mu déggoo ci nga déggoo ci moom ndax loola droit am la su ngeen ci déggoowut li gën a bari ci jumhurul fuqaa dañ ne bul ko def ngir bañ loolu yëpp nag am boo jëfandikoo euh, loolu ñuy tuddee planning fexe daal ba ëmb bi du am ci temps bi ndax jur mi dafay jege wala nangam ak ki nangam ak nangam coono boobu yëpp du la ci fekk waaye nag loolu itam ñoom ñëpp ne nañ fokk ñaari way dencante dëppoo ci rawatina maalikee bi ñuy àtte woon ñun fii ci Sénégal dañ ne ñaari way dencante ñu ci dëppoo dara nekk xam nga affaire méthode yi moom euh, euh, c'est trop technique man xaw ma leen euh, xam nga man li ma xam moo di ne fu dara nekkul daal nga fexe ba ëmb du fa am mu muy manul xamli l'islam daganal na ko waxtu woo xamee ne nag docteur nee na kii day am na ay feebar yi nekk ci mu attanatul ëmb su boobaa rek la l'islam di daganal ñu fexe ba kooku du amati doom waaye lu dul loolu fexe ba du amati doom faw faw faw faw loolu l'islam du ko nangu lu mooy nag ñu ne kii bu ëmbatee kat kaza wa kaza su boobaa yaa xam légature nga ko tuddee wala leneen su boobaa da koy nangu parce que wolof yàgg naa wax naan yaa na ndox mi tuuru te dinaa bañ a